ca dernier xeexam ba mujj xeex te ci la xaroon xeer ba dugg ca dafa ni woon sama mission bii ma yor muy salaatal faatih fii ba doju ngor kii yor relève bi ëllëg ki kay continuer continuité bi Malick lay tudd borom sër bii ngeen ma jox mu jox ma addiya muy maam faa wadd wele moo koy jur kon ndekete moom Chemar Fouti annoncé na Seydi Hadj Malick lu jiitu muy ñëw loolu nag fi nga koy ni koy déggee mooy yàlla subhaanahu wa taala boo demee ca aalamul arwaax mooy fa mu ci am yi léegi ci biir am yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa moo fay tànn ay nit yoo xamante ni jox leen ay mission bu ma la ko doon jox misaal ci jamono mi ngi mel ni nga ne entraîneur Sénégal bu dee seetaan yenn championnat yi di ci gis ay jour yu ko arrangé da koy xëcc mu ñëw yonent bi sallallahu alayhi mooy dem ci aalamul arwaax gis ni ah Seydi Hadji Malick mii kat soxla naa ci moom nangam ak nangam ci sama mission bi ma yàlla sant mu ñëw ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ginnaawum yonent dootul am léegi nag mais dina am ñuy ñëw di yeesalaat diineem di ko defaraat di ko tegaat ci yoon mooy la ñuy wax al mujaddid loolu nag la Seydi Hadji Malick wane Seydi Hadji Malick nag daal di initier gàmmu mu di bis boo xamante ni li tax mu mu mu mu woote ko gàmmu parce que daf daan wax ni moom Seydi Hadj Malick mag moo xam ni benn dëgg nga am te ci benn guddi nga ko war a wax boo sañoon koo njaboote mu fekk ko mu fekke ko maanaam Seydi Hadj Malick bi mu yoree ay taalibeem jàngal leen mu xaddamal leen defar leen ba pare daf leen a distribuer tas leen décentraliser leen pour ñu war a nekk ay làmp fa ñu nekk fa ñu jëm léegi nag bu gàmmu jotee ñooñu noonu di muqaddam yi dajaloo ñëw bu ñu ñëwee ñu rendre ko compte ñaata ijaasa nga def ñaata nga may werd ñaata jàkk moo fa am ak lan moo xew sa dëkk bu ko defee mag ñi toog waxtaane ko ñi xoolaat nu ñu tëralewaate mu joxewaat message ba déwén bu ko defee nag moom ba muy njëkk a gàmm nag première gàmm gi boobu du woon woote boo xam ne ñëpp dajaloo la booba moom ak benn mu muqaddamam taalibe maam rawaan ñoo ko njëkk a def booba Seydi Hajj Malick dafay jël xaaju kaw bi maam rawaan jël xaaji suuf bi bu ñuy paree rek ñu nodd fajar ci noonu lañ ko commencé dema dem ba dugal ci nag di tagg yonent bi salaa salaam mu defar nag téeréem bu riche boobu di xilaasu dëhëb nga xam ne moom la defar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudde ko xilaas di wane ni eh, carte d'identité yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam comme ixlaas ni mu nekkee carte d'identité yàlla ndax yàlla boo ko bëggee xam da ngay dem ci suratul ixlaas mais yonent bi sallallahu alayhi boo ko bëggee xam da ngay dem ci xilaas lépp loo soxla rek pour xam ko ci mu jëriñ la mi ngi ci biir euh, baatu xilaas moo tax sax boo xoolee ñaari baat yooyu xilaas ak ixlaas ñoo bokk même moo même signification lenn rek moo leen wute la mooy alif bi am ci ixlaas ci yàlla ak alif bi amul ci xilaas ci yonent bi sallallahu parce que alif bi am ci ixlaas ci yàlla mooy yàlla moom carte d'identité waroo ko see roy ci dara bàyyee ko ko moom kese moo ko jagoo mooy moom la ñu hamzatul izala lam yëlid walam yulad walam yakun sa yoon nekku si mais xilaas nag nga xam ne carte d'identité yonent bi la sallallahu alayhi wasallam kooku da nga a roy ni muy waxe ni muy doxe ni muy jëfe moo tax mu dind alif boobu kon Seydi Hadji loolu moo taxoon mu initié gàmmu euh, pour yaraat taalibe yi joxaat leen message bëggloowaat leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam fexe ba génne tamit ci xol yi kiñaan ak soxor ak fanatisme ak parparloo ak ñàkk a bokkoo